asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ngeen dalak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bayeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak ko Kole ñu seeti bopp xibaar yi. Central Bank bu Gambia ñoom ak seen àndandoo yi leen di jàppale muy World Bank bi ak seen yeneen àndandoor yi ci àllarba bi ñi ñoo dajaloo nag pour ngente ab sartagu ees goo xam ne nag ñu ngi ko tëral jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi mu aju ci wàllub doxalinub koppar gi. gis gisɗen naka brikama area council ñu ngi defaraat yenn yoon yu nekk naka sa diwaanu brikama bi pour wàññi naka jafe-jafe goo xam ne njula yaa ngi koy jànkuwanteel ci wàllu dem ak dikk bi matuwaay bi ñu jël ko rek pour gis ne indi nañ ab yokkute ci dundinu askan wi ci xibaar yi mbokk yi doxantu nañ nag pour waxtaan lu aju nag ci mbirub TikTok Instagram ak YouTube gis nañ nag si jamono ji ndaw yu bari yu nekk ci biir réew mi ñu ngi cee dugal seen loxo am na ci ñenn ñoo xam ne nag si jamono ji bunt yooyu ubbil na leen buntub liggéey. mbokk yi looloo doonoon bopp xibaar yi ñu taxil bu ñu dellu see yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi Central Bank bu Gambie ci ndimbal goo xam ne nag ñu ngi ko am bàyyeekoo nag si World Bank ñoom lëkkaloo nañ ak seen àndandoo yi ci àllarba bi ñu dajaloo ngénte nag ab sàtt gu ees goo xam ne ñu ngi ko faciliter jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi matuwaay bi nag ñu jël ko pour gis nag dooleel nañ seen bopp ci seen liggéey bi tamit nag dooleel lu aju nag ci koppar gu ñoo jëfandikoo jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi. li bokk na ci yokkute ñu nara a isi ci biir réew bu kambe bi jomale ko naka ci seen wàllub liggéey bi ku ñu naan docteur Siku Jabi moom mu doon naka first deputy gouverneur bi ci Central Bank bu Gambie bi moom ginnaaw doon gaaral kàddum si ubbiteeb ndaje bi wax na ne si jamono ji lu aju naka ci wàllub doxalinu koppar gi bu ñëwee naka ci seen wàllub liggéey bi njëriñ gu ci nekk ak itamit yokkute gu ci nekk moo tax naka ñoom ñu jël matuwaay bi te lii naka dañ ko jël pour gis ne nit ñi naka maanaam ñàkk goo xam ne naka mu ngi ci biir réew mi mu génn fi ñu ne naka naka ñoom dañ taxaw pour doole naka lu aju ci wàllub koom-koom gi li war a aju naka ci wàllub koppar goo xam ne ñu ngi ko jëfandikoo ci réew mi ak tamit mbirum njënd meeg njaay mi tamit naka nañ tëral ay sata pour gis na naka lépp loo xam ne rek ñu ngi ko def ci biir réew mi dina isi ab yokkute tamit naka isi ab wéccite ci dundinu askan wi ndax naka boo bàyyee xel ñu bari naka dañoo ñàkk loolu nag lañ fi bëgg a génnee pour jàppale naka askan wi mu ñu sukkandekoo si kàddoo mu ne naka pour am koppar ci biir réew mi doon na mbir boo xam ne naka dafa jafe mu tax naka ñu bari naka mënuñoo dooleel seen bopp mu ne waaye naka sarta goo xam ne ñu ngi ko fas yéene jël jëmale ko naka ci seen wàllub liggéey bi dina jàppale naka dëkk yoo xam ne ñu ngi defaraat seen bopp pour mun a taxaw ci seen tànk mu ne lii nañ ci lëkkaloo ak seen àndandoo yu nekk ci àddina si ba tey rek mu continuer di wax ne liggéey goo xam ne naka boobu lañ nekk di def wala liggéey gu ñu fas yéene def ci biir réew mi matuwaay bi dañ ko jël pour gis naka dooleel nañ askan wi lu aju ci wàll wàllub koppar jàppale leen nag ngir ñoom it ñu génne naka si ñàkk bu ñu nekk. Niani Dabo moom mi nga xam ne nag moo nekk ci banxaasu United Nations bi seen capital development foon bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na yokkute yoo xam ne nag ñu ngi ko nekk di am bu fekkee ne nag am nañ ab koppar gu takku jëmale ko nag ci liggéey bu ñu fas yéene def ci biir réew mi mu ne lii nag dina ubbil buntu nit ñi pour ñu mun ñu am fu ñoo ngëbandu ngir mun a dooleel seen bopp mu ne nag satta goo xam ne ñu ngi ko fas yéene tëral mu aju nag ci mbirub koppar doon na mbir boo xam ne nag dina yokk seenub liggéey te lii ñu ngi si fas yéene lëkkaloo ak kilifa yi Lumana Komashy moom mu ko ci EU seen délégation bu nekk si wàllub yokkute gi ak itamit doon seen international aid manager bi moom mu ne am na yaakaar ne naka koppar goo xam ne ñu ngi ko fas yéene dugal jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi bu fekke ne naka indi nañ ko dina isi ab yokkute ci dundinu askan wi ndax koppar googu naka na jàppale askan wi pour gis naka wàññi nañ ñàkk goo xam ne naka ñu ngi ci réew mi te loolu naka dañ ko jël pour gis naka jàppale nañ néew di doole ba tey mu continué di wax ni lépp loo xam ne rek ñu ngi koo def ci dundinu askan wi dañ ko tax a war lekk pour gis ne indi nañ a wéccite wàññi nag ñàkk goo xam ne mu ngi ci biir réew mi jàppale askan wi nag pour ñuy fajal seen soxla seeni bopp ginnaaw ba mu doon dalal gani si ndaje bi vice président bi di wuyoo ci docteur Aïssatou Touré moom wax na ne matuwaay goo xam ne nag kilifa jël nañ ko dina doon mbirub yokkute su ñëwee nag ci dundunu askan wi yeewoo ci biir réewu Gambie bi surtout ma nag doomi réew mu continué di wax ne nag matuwaay bi dina isi ab yokkute ci dundunu askan wi tamit nag ci wàllub dëkkuwaay ak i tamit ci koom-koomu réew mi VP Touré mi vice président Touré ba tey rek mu continué di gaaral kàddoom di dëgëral nag ne nguurub Gambie bi ñoom it nañ dugal seen loxo pour gis ne lëkkaloo nañ ak ñii ndax naka lu ñu def nii maanaam matuwaay bu ñu jël mbir la boo xam ne naka dafa bokku ci sat yu ñu tëral pour gis ne naka indi nañ ab yokkute ci réew mi. ba tey mu continué di wax ne am koppar pour taxawu sa bopp ci biir réew mi doon na mbir boo xam ne naka dafa jafe waaye naka kilifa yi ci déggee seenu tànk taxawu askan bi dina doon mbir boo xam ne naka dafay yomb te lii naka dina wàññi ñàkk gu nekk ci biir réew mi mu ne naka lii mbir yokkute la ci réew mi te moom naka mu ngi koo rafetlu ñàkk gu nekk ci réew mi umpul kenn waaye nag si jamono ji kilifa yi ñu ngi taxaw lëkkaloo ci ak seenu àndandoo yi àndandoo si nag ak banxaas yi pour gis nag wàññi nañ ko banxaas bu ñu naan UNCDF si gestu gu ñu def wax nañ ne ci atum 2019 ci téeméer bi li war a toll nag si juróom-benn fukk ak juróom-ñeent doon nañ ne ñoo xam ne nag dañoo ñàkk te am nañ jafe-jafe pour am nag koppar gu ñu taxawoo seen bopp te ñii nag ñu ci ëpp nag ay jigéen leen. kon nag si jamono ji kilifa yi nag ñoom dañu am yaakaar ne sarta gu es goo xam ne nag bindi nañ ko mu doon ab xaatim dina leen jàppale nag pour doole seen liggéey bi tamit yaxanal nag lu ajo ci wàllu koppar gi tamit naka na leen woon buntu goo xam ne nag boobu la ñoo jëf tamit naka na leen woon buntu bu ñoo mën a jàpp pour gis nag am nañ ab yokkute wàññi nag ñàkk goo xam ne mu ngi ci biir réew mi dooleel nag jigéen ñi ak ndaw ñi yeewoo ci biir réew mi. birkama Area Council ñum nak ñu ngi defaraat yoon gu nekk ci boori marché birkama bi matuwa bi ñu jël ko rek pour gis na indi nañ ab yokkute ci dundinu askan bi yewo ca boor yooyu tamit naka wàññi jafe-jafe go xam nak naka ñu ko jankwantel ci walu dem ak dikk bi ñenn ci kilifa yi nag wax nañ ci yokkute goo xam ne nag mu ngi aju ci mbir mi ñu ne nag mbiru yokkute la bu ñëwee nag ci dundinu askan bi yeewoo sa boor boobu Brikama nag mu ngi bokk ci tundu West Coast region bi te nag bokk na ci tund yi gën a mag bu ñëwee ci biir réewu kambi bi sa foofu nag am nañ banque am nañ lapitaan governance office bi mu fa am nañ fa Gambia college bi am nañ fa baaxaasu fire service bi am nañ fa petrol station te nag marché gu fa nekk bokk na ci marché yu gën a rëy bu ñëwee ci biir réew mi muy kàmm bi defaraatu bi yoon yi naka nit ñi dañ ko jàppee ne mbir bu am solo la ndax naka dina indi ab wéccite ci dundinu ñu faa yeewoo tamit naka dina isi ab jafe tamit naka dina wàññi jafe-jafe goo xam ne naka mooy la askan wi di jànkuwanteel bu ñu wéy ci wàllub dem ak dikk bi dina jàppale driver yi nit ñoo xam ne naka ñooy jënd ak njaay Lamin Bajo moom mu doon regional forestry officer bi sa West Coast region ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne defaraatub yoon yi naka mbirub yokkute la ndax na wàññi jafe-jafe sim jaaykat yoo xam ne naka ñoo dee nekk ci marché bi dina jàppale naka driver yi ak nit ñu dee jëfandikoo yoon yi mu ne naka boo gestoo ci marché Brikama bi suñu duggee naka ci nawet daf di indi ab jafe-jafe yoon yi naka pour nga dox fa wala sax nga fa sa moto wala sax ngay dem ak ñëw daf dee jafe mu ne waaye naka defaraat gii nii dina isi naka ab yokkute mu ne bu njëkk naka boo xoolee borom puus puus-puus yi ak borom saretu mbaam yi dañ dee buuxante naka ci yoon bi mu ne waaye léegi kenn ku ci nekk naka mun ngaa dem sa soxla te fekk naka doo laal sa morom Bamba Sarr ak Suute Samate doon ay njula si marché bi wax nañ naka njëriñ gu nekk ci yoon wi bu ñu sukkandekoo ci kàddu gu ñu wax ñu ne naka yoon woo xam ne moo jubali lopitaan bi police station bi ak Nana Johnson doon na yoon woo xam ne naka ñu bari dañ koy jëfandikoo te naka yoon boobu noonu dañ si daan am jafe-jafe gu bari ñu ne waaye naka kansul bi matuwaay bu ñu jël ñoom ñu ngi koo rafetlu ñu ne naka ñoom dañ dee sonn trop bu ñu duggee naka si nawet surtout man naka place yi ñëweekaay yu nekk sa boor yooyu mbënd mi naka maanaam yool nda bi daf di dugg ci seen place yi te loolu nag daf leen di isil ab jafe-jafe ñu ne waaye nag sant yàlla lépp nag mu ngi baax. Karamba Suso moom it mu doon ab njula ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne defaraatu yoon bi naka na ko isil ab yokkute mu ne mu ngi ñax naka council bi pour ñu gën a takk seen i tànk tibéy defaraat naka yeneen yoon balaa naka ñuy dugg ci nawet bi ndax naka bu ñu duggee ci nawet bi dañ dee sonn waaye naka yoon yi bu baaxee jafe-jafe googu naka dina génn. mu ne ba tey naka di nga gis ne ndox yaa ngi dugg naka ci suñu place yi mu ne waaye naka ba tey tamit council bi maa ngi leen di ñaax rek pour ñu mën ñu continuer liggéey bu rafet gu ñu nekk di def. Awa Ceesay Njagaan ak Abibatu Marong ñi ñëpp naka ñoomit ñu doon ay njula ginnaaw nañ gaaral seen kàddu awa naka mu ne yoon bi dafa fees tepp ay pax mu ne bu fekkee ne naka yaa ngi ñëw foofu wala bu ñu duggee ci nawet bi danga gis ne naka pax yooyu yëpp daf dee fees ak ndox mu ne waaye naka sant yàlla defaraatu yoon bii dina leen wàññil naka boobu la jafe-jafe abibato mu ne naka marché bi yëpp ab ndox la mu ne naka yenn saay da nga gis ne ndox mi daf di ñëw ba ci seen uum yi mu ne naka te loolu daf leen di indil jafe-jafe ci seen wàllum njula bi ndax ñu bëri naka ci suuf lañ deelal di jaay mu ne waaye naka defaraatu bi yoon woo xam ne kansul waa ngi koy def dina leen jàppale naka si seen njula bi foo Fodé Manjang ak Wiye Thiam ñi ñu doon nag PRO bu Brikama market bi ginnaaw ba ñu doon gaaral seen kàddu jaajëfal nañ nag kansul bi ci yoon yu es yoo xam ne nag ñu ngi koo defaraat ñu continué di wax ne nag council bi si jamono ji koppar goo xam ne nag ñu ngi koo jël jëmale ko ci wàllu lemp bi ñu ngi koo delloowaat nag ci askan bi yeewoo sa West Coast region ñu rafetlu matuwaay bu council bi jël pour gis nag delloowaat nañu leen koppar goo xam ne naka ñu ngi koo fayee lempo buntu xarala yi naka si jëmmu jamono ji ñu nekk ñu ngi isi ab weccite yu rëy ci dundu doome aadama yi surtout ma naka ndaw ñi xale yu ndaw yu bari yoo xam ne naka ñu ngi yeewoo ci biir réewu Gambi bi ñu ngi ci dugal seen loxo te si jamono ji naka ñu ngi si jaare am ci naka ab buntu liggéey am na ci yenn ndaw yoo xam ne naka dañ ko jàpp muy liggéey waaye tamit am na ci ñenn ñoo xam ne naka dañ ko gisee ne mbirum ñàkk fayda la ci biir loolu naka waxtaanee nañu ak yenn kilifa yi pour xool naka njëriñub social media yi maanaam buntu xarale ci biir réewu Gàmbi bi ak ñoom naka nuñ ko gisee. ñu bari naka dañ ci dee amee xaalis ñenn ñi naka di ci jaar am liggéey bu fekkee ne naka am nga content bu baax bu ñëwee naka ci biir réewu Gàmbi bi. surtout ma naka ku ñu naan Risky Dennis moom naka mu ngi am YouTube channel boppam te naka mu ngi ko tuddee boppam Risky naka doona na doomi bi Gambia boo xam ne naka dafa bàyyeekoo ci America si atu 2015 moom ak njabootam gi ñu ñoo toog naka ci biir réewu Gambia bi waajur yi mi maanaam Risky ak jëkkëram ñoom naka bañ fi yegsee ñaari semaine si lañ ubbi naka seen YouTube channel pour woon askan wi naka lu aju ci mbirub der bu ñuul bi ak itamit ñu koo dooleel matuwaay gu nga xam ne naka jël nañ ko indil na leen ab yokkute ci buddu xaralañ jamono ji naka li war a si juróom fukki junni ci ay nit ñoo topp naka seen YouTube channel googu. risque nak mom yokuta go xamne amna ko ci youtube channel am gi taxna nak ci si ci ji wayam nak ci biir rew mi mu ngi ko rafetlu tamit nak ni ñangi naka rafetlu nako, mat gu nga xamne nak jël nako batay rek mu ne mu ngi ñax doomi rew yi ni pour ñu min nak ñu ubbi seen buntu xarale bop pour nak indi nañ ay content yo xamne naka da fay ninyi nit ñi jangat leen yokkat leen nak xam-xam tamit nak xam no leen mbir yo xamne nak xamuñ ko te mu ngi ci mbirum nit ku ñuul wala sax ci mbirum seen mom channel am gi lu ci gëna bari naka mbirub Gambia la fa dee waxtaanee mu doon naka dëkk bu ndaw koo xam ne naka mu ci West Africa te saa yu nekk naka daf dee dooleel lu aju naka si mbirub njulab réewu Gambia bi surtout ma naka si ñëwee si jaayu ak jëndi kër ak itamit mbirub askan wi ak mbirub taarix ñeneen ñoo xam ne tamit am nañ yokkute si bi YouTube channel ku ñu naan Labin Touré ñu ngeen koo xamee si Mazim baadi ak ki nga xam ne nag ab tiktoker la muy wuyoo si tiida Diop Labin moom si jamono ji nag mu ngi am lu toll nag si ñaari millions yi nit ñoo xam ne nag ñoo ko topp si YouTube channel am gi te naka vidéo yi mu fay dugal def di yegg naka ci fukk ak benn million yi nit ñoo xam ne naka ñoo ko dee seetaan Tida Diop moom it naka doon na koo xam ne ab doomi réew bi Gambie la te si jamono ji naka moo nekk di jog moom it ci buntu xaralañ mu koy jaarale naka ci wàllu TikTok moom it naka am na luy war a toll si juróomi million ci ay nit ñoo xam ne naka ñoo bugg moo wone ñu like naka li nga xam ne mooy TikTok am bi war a toll naka si téeméer ak juróom fukki junne ci ay nit ñoom naka ñoo ko topp si ñaar TikTok account yoo xam ne naka am na ko Tira Diop naka moom vidéo yu mu fa dee dugal daf dee dugal naka lu aju ci wàllub comédie mi maanaam di reetaanloo nit ñi. ëmpale wuñ ne naka bu ñëwee ci réewu Gambie bi ndaw ñu bari naka nekkuñ di liggéey te bés bu nekk naka loolu mu ngi yokku waaye naka si jamono ji xale yi naka ñu ngi am matuwaay bu ees mu jaarale ko naka ci buntu xarale di jëfandikoo naka seeni mobile yi pour gis naka am nañ ab yokkute ci seen wàllub dund. ñetti ñi nga xam ne naka ñooñu la tudd ñoom ñoo doon ñoo xam ne naka ñoo jot am ab yokkute bu ñu wéy naka ci wàllu buntu xaralañ am na tamit ñeneen ñoo xam ne naka am nañ ko waaye naka seeni tur yi feeñoon lii naka bu fekkee ne kilifa yi taxawu nañ ci pour jàppale ci naka ndaw ñi da nga gis ne naka ñàkkub liggéey gu ñu jooytu ci biir réew mi dina wàññeeku. bu ñu sukkandekoo ci gëstu bi ñu ne li war a toll nag ci ñeenti téeméer ak fanweeri junne nit ci biir réewu Gàmbi bi ñoom ñoo nekk nag di jëfandikoo buntu xaralay bayeekoo nag ci weerub janwaari atum 2021. ci biir réewu Gàmbi bi nit ñoo xam ne nag ñoo dee jëfandikoo buntu xarala yi ñu ngi toll nag ci juróom-benn fukk ci junne nit te lii nag mu ngi gën a yokk ci at atum 2020 ak atum 2021 bii ñu nekk. daanaka li war a toll naka si juróom-ñetti nit ñoo ñàkk seen bakkan fanweer ak juróom-ñetti jëlee ci gaañ yi métti ci buuxante boo xam ne naka am na ci ab stadium bu ñu naan Olymbe stadium lii naka mu ngi xew sa Cameroun si jongante goo xam ne naka mu ngi waroon a jaar diggante Cameroun ak dëkk bu ñu naan Comoros ci altine bi. xibaar yi ñu ngi wax ne xew-xew bi am na naka si buntub stadium bu ñu naan Olympique stadium mu nekk sa Cameroun ñu ne sa foofu naka mbooloo mu bari ñoo fa dajaloo woon fas yéene dem seetaanib jongante goo xam ne naka mu ngi waroon a jaar diggante Cameroun ak dëkk bu ñu naan Comoros mbooloo boo xam ne naka ñoo fa daje dañ tëjoon naka buntu stadium bi ñu mi ne naka ñuy buuxante pour dugg ci biir mu tax naka juróom-ñett ñàkk si seen bakkan fanweer ak juróom-ñett jëlee ci gaañ yi metti si jamono ji nguurub Cameroun bi ak kaaf ku ko jiite ñoom naka ñu ngi génnee bataaxal di jaale naka njabootub ñu ñàkk seenub nit ñi ci bataaxal goo xam ne naka nguurub Cameroun bi génnee nañ ko seenum jiitu réew mi muy wuyoo ci président Paul yaay moom naka mu ne mu ngi jàlle nit ñoo xam ne naka ñoo ñàkk foofu seenum nit mu ne lii naka mu ngi ko tamit mu ngi masawu nit ñoo xam ne naka ñoo ci jëlee ab gaañoo si talaata bi kilifa gu jiite banxaas bu ñu naan Confederation of African Football banxaasu CAF bi ñoom ñoo doon banxaas bu taxawal jongante bi ku ko jiite moom gaaral na kàddoom ci kanamu taskatu xibaar yi sa foofu nag moom jël na benn waxtu pour noppi wone ko nag ne jaale la goo xam ne nag mu ngi ko jox njabootu ñi nga xam ne nag ñoo ñàkk seen bakkan. mu continué di wax ne moom naka lii mu ngi ko naqarlu tamit mu ngi masawu naka ñi nga xam ne ñoo ci gaañoo mu ne lu xew naka birki démb naqari na ko torop te loolu naka waratu na am mu ne naka mu ngi xamal askan bi ne lu mel noonu naka dootul amati. ginnaaw ba li xewee naka kilifa yi ñoom amoon nañ ab nangoto pour noppi naka lu toll ci benn minute géem bu nekk pour gise naka jàlle ne ñu ñàkk seen bakkan. ci xibaar bu ñu jot nag ko ci local committee bi ñu ngi wax ne nag mbir mi fooguñ ko woon ne nag dina am waaye nag banxaasu kaf bi muy maanaam banxaas boo xam ne nag moo nekk di saytu lu aju ci wàllub jongante boobu ku leen jiite nag si arjuma bi moom nag wax na ne buntu bi nag dañ ko waroon a ubbi waruñ woon koo tëj pour nit ñi nag mën a dugg seetaan jongante bi waaye nag si jamono ji kilifa yi nag ñu ngi jël matuwaay bi pour gis ne nag waxtaanee nañ mbir bu fa xew xool nag naka lañ koy doxalee pour xam nag du amati.